entreprises individuel ou collective ayant pour but d'intimider une population, de troubler gravement l'ordre ou le fonctionnement normal des institutions nationales. Mais toute personne qui recrute une autre personne pour faire partie d'un groupe ou pour participer à la commission d'un tel acte terroriste est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. De même, toute personne qui fournit ou propose de fournir des armes à un groupe, à un membre d'un groupe ou à toute autre personne pour sa participation à la commission d'un acte terroriste est puni de la réclusion criminelle à perpétuer. Donc les actes de terrorisme, ici je voudrais vraiment insister sur ça, à l'intention de nos compatriotes, c'est des faits criminels. Et c'est des faits criminels pour leurs auteurs, pour leurs complices. Et c'est des faits criminels qui sont qui font l'objet de condamnations pénales, notamment la réclusion criminelle. Donc ici, je voulais en profiter euh, pour parler aux jeunes, euh, aux jeunes euh, membres d'organisations qui, envisagent ou qui projettent de commettre de tels actes, d'attirer, d'appeler leur attention sur la gravité de tels actes. Et que de tels actes appellent un traitement pénal sévère. Le Sénégal est un pays, est un état de droit, c'est un état qui se caractérise en Afrique par sa stabilité politique, sa stabilité politique exemplaire. C'est une grande démocratie, le Sénégal. Euh, le Sénégal est entré dans les démocraties avant bien des pays européens, avant bien des pays américains. Donc c'est un pays où l'État est fort, l'État est debout, c'est un pays avec euh, des institutions fortes et le Sénégal ne peut pas accepter des entreprises terroristes qui visent à renverser l'ordre constitutionnel ou bien à déstabiliser l'État. Voilà les quelques considérations que je voulais faire en guise de prologue et je vais rester à votre disposition pour d'éventuelles questions. Voilà, je vous remercie. oui bon voilà en wolof ngi euh, fan nak dañu seetlu ne dañu ne dañuy japp Ousmane Sonko ba légui amna ay manifestation dañ ko jappé euh, ba duñ ko ci kasso dañu gis né dafa am ay manifestation yu am ci réew mi waaye manifestation yi euh, suñu seetloo ci ndakaaru la région de Dakar ak région de Ziguinchor foofu mo am quelques manifestations même ci biir Dakar sax ay quelques points ñoo ko am ci biir lool nak amna ño ñoo xam dañu jógoon pour yàq pour toj pour l'ac, ñeneen ñi ne euh, daané leen nguur gi appel à sélection ñeneen ñi di ut ay cocktail molotov ak euh, yu mel noonu pour tar réew mi yàq lakk ñëw fekk ay biens yo xamanteni état bi moko mom wala collectivité locale ñoko mom wala sax ay biens yo xam ay privé ñoko ko ñuko yaq ko def ay manifestations yo xam dañ ko téré loolu nag bi amé japp nañ ci am nañu ñu ñu ci japp yu xaw a takku nag yoo xamante ne jàpp nañ leen waaye ku deful dara kenn du la jàpp ñii ñu jàpp mooy ñu bëggoon lakk ñii ñu jàpp mooy ñi bëggoon toj ñii ñu jàpp mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw yàq de yëfu jàmbur loolu ñooñu nag jàpp nañ leen loolu moom nekk na loo xam. gouvernement euh, nga boo xamante ni say euh, citoyen dañ lay respecté mooy gouvernement bo xam ne da ngay indi nag jàmm da ngay indi dal da ngay indi ordre da ngay indi ba nit ñi suñu génnee duñu ragal ñu dogaale leen da ngay indi ba nga xamante ni jaaykat bi su ubbee boutique am nit ay ay wuyu duñ ñëw toj ko da ngay def ba nga xamante ni ñi bëgg a def ay acte de terrorisme mooy ñëw fekk lu mel ni li amoon yaraax benn cas boo xamante ni dafa ñëw di daw ñu sànni ci cocktail molotov Euh, euh, mu am ay gaañu gaañu ba am ñaar ñu ci dee loolu gouvernement bu am fayda gouvernement bu xam liñ ko dénk du ko nangu loolu moo tax ñu jàpp ñooñu nga xamante ni jàpp nañ leen waaye ci biir loolu nag dañoo seetlu ne euh, dafa am avocat tubaab boo xamante ni moom dafa ne mi ngi bokk ci avocat Ousmane Sonko yi waaye moom su nekk bi mu nekkee fële ci Europe day day day def li ñuy wax ay appel à l'insurrection day wax sénégalais yi jóg leen. Euh, daale leen nguur gi lakk leen euh, euh, yàq leen toj leen waaw parce que moom sax bind na benn livre boo xam loolu la ciy wax nu ñuy yàqee nu ñuy tojee nu ñuy toje commissariat nu ñuy lakkee ay dëkk waaw loolu kooku nag bi mu defee loolu yëpp jëmale ko ci suñu réew suñu réew dafa defoon nag li ñuy wax mandat d'arrêt international mandat d'arrêt international mooy dañoo def benn këy boo xamante ni dañ naan réew yi mu mën a jaar yëpp wala Interpol foo leen ko mun a jàppe jàpp leen ko ngeen jébbal ko Sénégal bi mandat d'arrêt boobu amee nag moom mu tànnal ci boppam ñëw biir senegal làqatu nag dafa làqatu làqatu masqué wu ñëw Sénégal gisuñu ko sax bi muy dugg si ndax dafa masqué wu jaar fu compliqué mais bi mu ñëwee fii ba ñu yëg ko dañ ko commencé di seet ñu seet ko mu dem euh, jël gaal euh, dem ci géej gi dem ba Mauritanie foofu lañ ko jàpp dem ba roso roso ci roso lañ ko jàppee. Euh, indiwaat ko fii remettre ko police Sénégal bi ñu ko remetre nag comme mandat d'arrêt la mandat d'arrêt su ñu ko defee ci yow mooy su ñu la jàppee rek kaso nga jëm amul sax jaar ci procureur ak yooyu déedéet dañ ko jàpp rek yóbbu ko kaso bi ñu ko yóbboo kaso nag comme mandat d'arrêt la benn juge d'instruction moo ko émettre mooy juge d'instruction deuxième cabinet moo ko ins moo ko moo ko euh, lancé woon ñu jébbal ko juge d'instruction bi bi mu ñëwee rek juge d'instruction xool ko mandat bi kon jeex na dañ doon wër pour jàpp ko jàpp nañ ko. ñëw na taxaw ñu ne ko juge bi ko yow lay ndax ak lay Sénégal nga def ko te mu nekk ci mandat d'arrêt loolu dañ la koy loolu juger lundi wala mardi wala mercredi wax flagrant euh, appel à l'insurrection acte de manœuvre à à à provoquer euh, à mettre en cause la sécurité publique euh, renversement de l'ordre constitutionnel nekk na ay infraction yu ñuy wax criminel yoo xam ne soo ko defee yoon daf lay imposer souvent pour nga dem li ñuy wax information judiciaire mooy nga def l'enquête ba leeral loolu ba mu leer nañ donc loolu moo tax juge soo bi ñu ko woowee bi ñu ko bi ñu ko ko jébalee indi ko présenté ko daf ko inculpé inculpé ko waaye inculpé ko ne ko yow li ñu lay toppee nii euh, l'enquête bi temps bi mu laaj mën ngaa yàgg fii trop trop trop le Sénégal la détention c'est l'exception la liberté c'est la règle Vous était il lay contrôle judiciaire a contrôle judiciaire a inculpé la da à la disposition la justice sénégalaise il a la liberté provisoire Vous avez la liberté provisoire libéré wu la suñu la da ngay su soxla ci yow nañ def commission rogatoire a nañ condamné Si la condamné da ngay comme accord de coopération judiciaire avec France nga condamné ko suñ la condamné la wax suñ la condamné mun tam bañ nekk ay condamnation mais pour wax rek né contrôle judiciaire la nek am liberté provisoire lool nak bima amé ministre de l'intérieur mom def arrêté d'expulsion defal ko arrêté pour ñu expulser ko pour mu génn Sénégal dellu dëkkam ba ba yoon Sénégal di ko soxlawaat ci biir loolu nag gis nañu ne am na euh, benn avocat Sénégal boo xam ne jàppale na ko ci loolu nga xam ne ni ko doon def

Euh, muy muy muy avocat yi suñu jàppee kenn ci seen ñooñ nag dañ naan ñu bàyyi ko loolu ñoom yoon la comprendre nañ ko waaye ñoom ni ñuy defee seen liggéey ne pour ñu bàyyi ko nguur gi tam état bi tamit noonu lay defee liggéeyam état nag amul kenn koo xamante ne da nga nekk au-dessus des lois du avocat du magistrat du professeur du kenn du déet kenn nekkul au-dessus des lois du ministre du député kenn kenn nekkul au-dessus des moo tax ku yoon war a topp ku yoon war a euh, tegu ci sa kaw day tegu sa kaw. loolu moo tax ñu jàpp avocat boobu mu nekk en garde à vue biñ ko jàppee nag avocat yi wax laaj ne ñaan lañu ñu bàyyi ko waaye dañu maintenir garde à vue bi bâtonnier bi signé na benn communiqué ma ne ko waaw communiqué boobu de ñun mun nañ ko comprendre ndaxte loolu yoon la soo nekkee bâtonnier mu am avocat bu am euh, jafe-jafe ak nguur da ko war a jàppale waaye tamit dama ne bâtonnier bi tamit soo amee ay avocat yoo xam ne dañoo def lu dul noonu war na leen ko wax su amee ay avocats yoo xamante ni benn waaye day def lu lu àndul ak yoon euh, di def euh, entrée euh, entrée et séjour irrégulier dans le territoire sénégalais avocat bu ko def bataño bi ne ko loolu waroo ko def avocat yu organiser conférence de presse boo xamante dafa am koo xamante am mandat d'arrêt international ñëw di ci bokk bataño bi war leen wax ne waru leen ko def donc nag waxtaan wax dëgg ca la moom lay wax tam yenn saa yi xarit journaliste man leen yéen tam da ngeen di wax ak seen i seen seen seen bu leen bàyyi ba ñu jàpp leen ngeen ñëw ne bàyyi leen ko da ngeen leen di wax tamit da leen di wax tamit ne leen bu leen def loolu loo xamante ne aussi yoon euh, yoon da koy tere su boobaa ci la affaire li gën a yomb donc euh, metre Babacar njaay boobu dañ ko jàpp mu ngi nekkoon garde à vue depuis samedi pour recel de malfaiteur ça veut dire que dafa jàppale koo xamante ni li muy def tegu ko ci yoon léegi nag bi may dugg si fii la ma procureur général woo. ne ma comme la ñu defal maître Branco juge d'instruction bi inculpé na ko ko sous contrôle judiciaire mais ko liberté provisoire moom tam liberté provisoire la ko may moom ñaari avocat la ñu woon ñu may la ñoom ñaar ñëpp liberté provisoire ñu resté nag à la disposition de la justice Ça, yu leen soxlaa nag dañ leen woo wala suñu leen waree atte su fekkee jar na ko su ko éléments yi wonee dañ leen tamit atte waaw ci biir loolu nag may wax tamit ne dama am dafa am yu bëri aussi yoo xam ne dama koy dégg ñu koy wax ay tel euh, mi ngi fii euh, dafa feebar dafa xawma